ginnaaw bi ñu jógee dibiteri ba ñu ngi ñëw fii si sa bureau bi mais li ma lay njëkk a laaj lan moo la dugal ci politique. waaw politique xam nga li ma ci dugal xam nga diggante Fass Colobane Gueule Tapée mooy feef bi nga xam ni ci lañ doon tënk sarti politique ci Ndakaaru maa ngi suma ay aram jéen mu nekk sama yaay may ñaan yàlla yokk ay leeram parce que bi ma ñëwee Dakar à 70 laa ñëw ne ko damaa bëgg nga doon sama yaay. foofu laa gën a meele woon parce que orienté woon nañ ma ci syndicaliste soo xoolee ni ma mel nii nga xam ne toujours maa ngi ci xeex. lu ma gëmul du ma ko du ma ci dugg su ma jàppee dara duma ko bàyyi foofu laa ko jëlee parce que dama fawoon maa jàpp. laataa ngaa yegg si affaire am na foo jaaroon mais tey boo mënoon nettali jaar-jaar boo xamante ne bokk na ci lu gën a neex bokk na tam ci lu gën a metti laataa affaire. laataa affaire li ma gën a neex ci àddina ci suma jaar-jaar ci politique. mooy bis ma ànd ak ba bëgg bis boobu ñu rey mooy bis bi ñu arrêté Sandjiri ak Dame bi moom leeral point net ak Cheikh Ndiaye. ñu war ay fas keroog dañ waroon war ay fas dem ci ranch bi gars yi ancien ministrie yeeg fournisseurs yi ci bari dañoo daw keroog Idrissa ni ma qu'est-ce qu'on fait ma ne ko luñ la def danaa ko fekkee ñu la wax danaa ko dégg sa war fas ma war fas ñu ànd ma moom. ñu ngi war huit heures et demi du matin ñu arrêté gars yi. boobu fan ngeen doon jëm ba war fas. boobu dañu bëgg a génn euh, Ramsile Bango parce que boobu jamono. Euh, li de di presque mon la parce que beaucoup adversaire potentiel ñoo ministre de la justice ak ministre de l'Intérieur. Nous, les daal yi am ci pont bi ñu arrêté ñu arrêté de ak ki arrêté ki nga qu'est-ce qu'on fait Idrissa Nous bari pexe la dans di war fas ma war Nous bi nu 9 Nous ci Bango journaliste yi dig top ñu ak sey sey ñu ngi ñu topp xamuñu fu ñu jëm ngi doxal rek ben moment ñuy doxal ma ak mom be 11 h moins ma seen lu ma 3000 soldats ngi gaddu ay fetal di dal ci biir Ramsi bi. doo fu ñu leen jëm. dañu doon traverser rek mais dama né normalement ñun tay dañ ñu war fetal. parce que boobu jamono Idrissa réeru na ak état bi fi nekkoon ma ne normalement dañu war a fetal ne bal perdee rëy gars yi mais tey daal bés la boo xam ni même su ma ci dee man damay kontaan bés boobu laa dem ba bëgg a dee ànd ak Idrissa dee ndax kontaan ci bés boobu bés boobu mooy bi ma gën a marqué ci àddina su ma dee kere bi mu génnee ci gouvernement ba kere bi muy amaat ndomba tànk ci époque président Macky Sall luñ ko fi def fekke naa ko lu mu def fekke naa ko lu mu wax fekke naa ko fu mu dugg xam naa ko fu mu yendu xam naa ko fu mu fanaan xam naa ko lu mu fi defan technique xam naa ko ku mu fi jëfanteel xam naa ko parce que man ñu ma dàq le 3 avril lañ fa dàq à 2009 c'est croix su ma juumalee 9 2009 c'est mooy bi ñu def congrès ba ca stade Amadou Barry ak moom ci la ma dindi mais boobu bi ñu ma dindee dama ne c'est normal ñu dindi ma parce que média d'état la te man damaa contre boobu jamono état parce que dama contre état bi. ma nga loolu. ah oui xaar naa ñu dàq ma xaar naa ñu rey ma xaar naa aussi ñu jàpp ma parce que boobu nee nañ ma bàyyi Idriss ñu jox la ay millions yu bari man leen soxloo ma xaalis. honneur ma gën a et puis li ma waxoon bàyyi naa ci xel ba yàlla woon na ma tey ne su ma juumoon comme tey su ma doom yi tey dinaa am kersa seen que dama dañ ma dàq le 3 avril ma def point de presse le 8 avril ne len gouvernement bi fi nek suñu amé milliard duma ko jël duma ànd ak ñoom Idrissa lay àndal non non non du wor Idrissa du ma wor yalla mo dogal ci benn bokk yaakar yalla suñu borom dogal bi ñu toge président Macky Sall wo ko jox ko ñaari ministère yu mag hydraulique ak assainissement mhm. hydraulique way hydraulique ak pêche mu am ay député am ay directeurs généraux te doonuma ci benn te ma bokkoon ci xeex bi ma ne kon xëy na yàlla moo dogal sama wërsëg ngeen ko fii ci lañ waxtaan maa moom bi ñu joxetaanee ma ne ko maa ngi dellu ci yàlla mu ne ma à bientôt tàkkusaan du ma ko fàtte mukk bésu korité moom la à bientôt waaw à bientôt maanaam wax dëgg yàlla euh, léegi la rek saytaane ñëw mais bu njëkk wax ja bariwutoon ndax dafa am ñu ko daan wax ne yemal fii tàmbaleel fii man maa toog ak moom 5 heures et demi ba 6 mooy di wax benn baat la ma tegal à bientôt ma génn bi ma génnee ba tolloog Fann fekk sama yaay daf ma waxoon ne ma yaa ngi dem RTS waaye leneen dina ñëw ma ne bi li sama yaay waxoon tey laa koy seet ma ne ma ne lu ma jëkk a créé tey mu mag mu sax ma créé lëngoo foofu laa taxaw ne damay créé mouvement tudde ko lëngoo pour soutenir président Macky lu tax moom génn. Euh, si automatiquement tàggu ko nag yaa ngi dem si dibiteri ba sa xel jox la faw nga créer mouvement tuddee ko Longo te xalaatoo ci lu dul Macky Sall parce que sama yaay ci boppam. Mhm. lim ma waxoon lu ma ne moom laay def rek lu lu ma askanale ci sa maanaam sama yaay def ma leneen dina ñëw leneen loolu lu ma bëgg mu nekk rek comme sama yaay wax na ko loolu lay doon ndax man suma yaay mooy sama sëriñ mais li tax automatiquement ma xalaat président dañ maa toroxal bi ma nekkee ci réew mi Macky ndax réew mi taxan ni dàq ma réew bi jëlu ma Macky taxutoon ñu dàq ma ma Macky delloo ma sama place ñu fay ma lañ ma amee lan embauché ma nekk fonctionnaire de l'état tey au niveau mu xam ma di ma woolu te boobu jugoo jàppale ko. déedéet bi may teral waxuñu ci loolu amul benn condition ba ànd ak moom bés bi mu prêté serment ci kin Fahd Palace la lendemain la ma delloo sama place woo ma Mermoz ma toog soxnaam toog mu teral ma ci darajaam teral ma ci wërsëgam soxnaam teral ma gouvernement teral ma looloo tax automatiquement bi ma créé mouvement ma ne président Macky mouvement bi du anonyme. mais ci lëngu kenn ku dul non non du ma ci lëngu ku yàlla bind ku dul Macky mouvement bi lëngoo Macky rek lay soxna ak soxnaam la preuve mooy. Mhm. man sama baay. ci kilifa aada yi ki gën a mag am maqaama ci àddina chef de canton rek ma sa recevoir sama maam sama baay chef de village ko daa recevoir man bu ma demee tey ba nataal yi nga xool photo bii maa ngi moom màkk lañ ko photo woo ci kër buur bi donc moo tax sama carrière politique li ci des lépp ci àddina ci Macky Sall laa président Macky Sall laa koy def su su ko yàlla suñu ko falee premier tour incha allah mm. buñ ko falee premier tour 2019 ba deux buñ ko falee premier tour 2019 ci lay préparer bu soobee yàlla dinaa ko gunge nak bam bam mu jeexal. Mhm. su ko gungee bu mu jeexal ci ci maanaam ci Macky laay bàyyee politique incha allah dootuma tàcc dootuma teeru ku yalla bind ci kaw suuf ku dul sëñ Bamba ak waa mais lu la jaral lolu Khadim te amo ben rôle bo xamantene ne yaa ngi koy bi après amo fa ben poste. non non man mackiste laa ak ak maréniste. <laughs> moi je suis mackiste.

ki moy jigen ji nga xamni tur de bama ko lire rek sama sama xel da dem ci sama turu yaay yow ma yow gis nga ni ñu xawa bokké tuti jaar jaar ki ki motax euh, ba bama koy fekki manam ki par ay seconde lay ñew ci suma xol manam ay seconde ki motax bëgguma ku yalla bind ci ad ki rek la bëgg fimni suma febaré deug deug damay tal auto bi rek ñew touba ubbi raw lu suma ubbé tok yeesal njàpp julli ñaari rakk ni ko yaay maa ngi nii de suma tànkay metti wala maa génn ma wér lu ma bëgg ci àddina su ma jaar su ma jaaree ci yàlla yonent bi Sëriñ Tuubaa su ma turandoo rek su ma yegsee ci moom bal bi tàkk moo tax ragalu ma dara <laughs> léegi maa ngi doon dégg sànq nga dem am. wow por euh, suñu xarit koo xam ni depuis andak ans ñooy ànd ak moom muy Bàcc Ñang président directeur général groupe TMS transit TMS euh, yàlla dafa dogal mu nekk suñu xarit nek suñu géeru juddu mu dëkk Njaay Jàmmañaan ma Kul Xandak hmm. ñu and ànd bu rafet groupe bi mat nañu. 50 personnes nous ñu takali ko ben yoon. xaadim est-ce que mi ngi dund social di dimbali jami yi nga xamantene ne tanana len ak mouvement bi nga yor tamit parce que fi ku fi créer mouvement yaa ngi ñi ngi def social ñi ngi def li ñi ngi def li ñi ngi def toute ma vie c'est social parce que mouvement bi dañ ko créer 50% pour yi politique 50% yi pour social def nañ ay consultation gratuite ñun yo xamni ni garab yi coûté woon nañu presque euh, euh, trois millions et quelques mbuur. ñu ngi dem ci ay jàng ñu ngi dem ci ay dëj démb toute la journée dañ yendoo wër ñu dem nañu démb toute la journée dañ yendoo def ay njaal suñu militant yi ñun militant bu am ngénte ñu dem militant bu am ceet ñu dem militant bu feebar ñu seeti la militant bu am dëj ñu seeti la militant boo xam ne bii heure yi jot na ñu gis ne néew nga doole lañ am dañ koy bokk ak yow parce que dama leen sànq ca départ dama ne politique jàpp naa ne mas na cee jaamu yàlla suñu borom waaw loolu laa ko jàppee noonu laa ko fas yéene def tànk maa ngi nekk ci kaw suuf fas naa yéene lépp lu ma yor ci àddina parce que dama ne yàlla lépp loo ma jox ci àddina te mënu ma koo bokk ak mbindaafoon yi. Mhm. yàlla ko yàlla jox. waaw parce que fi ma jaar la. kon ñu préparé daal dem port. waaw léegi nañ dem port autonome bu soobee yàlla. yaa ngi may laaj ci ku baax mbokkum ñëpp mbokkum Sénégal te mën a wax lu baax ci nit man koo wax tamit ci nawleem ma fii nit ku baax nag di ñëw fii dina fi fekk ñu yàgg nag lool Molde de sama fanweeri at mat na fii lépp lu ma am ci ginnaaw yàlla tukkee fu man a doon ah tubaarkàlla macha allah fii laa ko amee sama càmmi li ñëw fekk ma fi defanteeg man lu baax di génn wàllu xaadim sàmm mu baax mi nga xam ne xay xayti ñëpp la xaadim sàmm xaytu Sénégal la xaadim sàmm nit ñee ko bëgg du taxaw ci télé mii mukk ba wax lu ñaaw lu mu wax dëgg la it di bu baax di bokkum ñëpp di góor bu riis macha allah suma xale loolu laa xam ci moom. yéen yéen set sunu nijaay ji xaadim Samb mi nga xam ni mooy njàppaakoto ku baax ku am yëg ci nit ku diiñ macha allah sama xaale xel mooy sunu nijaay ak sunu nijaay bàcc mi. bu loolu weesoo euh, gis nga émission bi su boobu léegi mi ngi déroulé léegi nag ñu toll foo xamante ne askan bi sax xam nañ ko muy xaadim ak làmb xaadim ak làmb lan moo leen boole ba yàgg ba ñu yàgg dëggu ba heure bi.

as sponsorisé ma xam nga loolu yàgg na euh, làmb ak xaadim nag man damaa judd rek di bëre ndax bëre njàmbaar def ciy feeñ te man fi ma juddoo ci Bawol ci communauté lu déeney guy gi muy dëkk bu ñu wax njoppam ñaar ngay xam boo juddoo bëre ak sàmm ak daw ndax xam nga bëre ci ñaari entité lay génne day génn ci mool wala mu génn ci sàmm wala kuy béy parce que loolu yëfi njàmbaar la sàmm njàmbaar la béy jàmbaar la napp jàmbaar la te bëre njàmbaar def ci feeñ ngor di ci feeñ ma judd nag mën a bëre lool ñuy bëre mbapat ub naa mbapat suñ njëkk ba tàyyi ñëw ndakaaru nag wàcc Medina à soixante dix soixante neuf soixante dix nekk nag ci diggante ñoo xam ne ñoo ŋànkoon làmbi ndakaaru yi muy Fall Adrien góor gi ma lewtaan Alaaji Balla Ñas ku mel ni bu Seck sekk yàlla na ko yàlla xare àjjana ku mel ni Jaafara Aan ku mel ni Alaaji Mboor ñi ngi bàyyi biram ñi ngi bii ñooñu nag ak Moustapha Ndiaye ñu nekk nak ci dibiteri bi di toog nag mbëri di ñëw foofu ci booba jamono ñoom Falaye Balde ñoom Mbaye Guèye man Papa Kane laa doon supporté moom la 69 ba 80 Papa Kane laa supporté 81 kere bi Manga daanee Mor Mor Ngeer laa faral Manga ba bi Manga yi bàyyi la am bàyyiwu ma ko. digganteeg dégg naa daa sax dem ba yor gemb na ko 54 combat Manga rek moy mbeur mbeur mo xamni musta bandone, musta bandone làmb mësta bandoone mu daanu musta dem ardo Manga de suma xarit la suma rak la suma domi ndey la suma confident la man Gaston Production mi ngi may deg man ak rakam bu wax ak pap Mayel ak tellement directeur général ades andak ñun ño and ak mom bobu jamono mu nek suñ mak ñu encadrer ko créé Gaston Production combat yi mu njëkk a tëgg mën naa la koo limal benn par benn ak mbër mu ci nekk lam la engagé Serigne Modou Niang suma rakk la par moo modestie dégg naa ko mun naa xaadim fekk na ma ci làmb mais Serigne Modou quatre-vingt-quinze la ñëw ci làmb man xamuma ko xamuma mun ñang palil door bi nga xam ni seen ñaari baay bokk ndey baay moo ko ne comme da ngaa bëgg a dugg ci làmb danaa la boole xaadim sàmm mun ñang nag budget mun ñang promoteur xam nga ko mu ñang palil dor moma ma ak mom, yebal ko ci man mu ñew sét si ma guddi ni ma dama bëgg teug lamb premier combat Serigne Modou ñang mi ngi may dégg mun ñang mi ma bolé ak moma gi dégg 200000 francs la indi ma teugal ko ku ñu wax pap seni ak Simel kérok ku ñu wax Seynabou cham bi nekk face nabu Couture monu may ñaari bolok sabador ñu décorer pap fay ben décorer Simel ben bala arbitre bee soulé lamb jooju ma ne ko nañ ko tudde faatumoor Mor bel daam Couture mu ne ma mook sama yaay bokk ndey baay kon Serigne Modou parcours am ci lamb maa ci suyee lu bari parce que moom mu dugg stade maa ko jëkk a dugal stade ba Mar Diop mu tëgg lamb Simel ak Pape fay Assane sama dooma maa ko jëkk a dékk micro lig maa ko jëkk a toogloo ci rajo mi ngi may dégg maa ko woon Bombardier xamu ko woon te mbuur lañ dëkk bés bi ma ànd ak jee di ko présenté lig keroog dama daal lañu yaasa lañu jël ci restaurant bi kër lig boo mi ngi yor dibiteeri bi ñu wax laan ki tuus man duut baaraam laay def bi ci des mooy làmb dama ci marqué sama empreinte ku mu neex ak ku mu naqari ndax maa jëkkata jox Tyson avance fay ko cent cinquante mille boole ko kàddu gi mérite la maa jëkk a tëgg Yékini Yékini fay ko ñaar fukki junni boole ko ak euh, euh, waaw Yékini laa boole kàddu gi fay Yékini cent mille fay kàddu gi soixante quinze mille Tyson ma fay ko cent cinquante mille man ak moor Mor Fadam ñoo tëggoon làmb jooju fay ngay lum cent cent cent vingt cinq mille Bombardier maa ko gis guddi téye loxo Gaston ni ko jëlal waa ji mbër la donc arbitré naa bëri naa mbapat mbër yi ëpp tey tur ci Sénégal kenn ku ci ne sama avance nga jëkk a jël ci àddina boole ko ak doon naa engagé ay mbër Balla Gaye 1 daan naa ko engagé engagé naa 8 huit dam Dame yal yàlla na ko yàlla xare àjjana engagé naa ko dix nga xam man may jël avance ñëw na la nommé naa la ak diw nga ne ma ñaata ma nangam yëkkati avance jox la. xaadim eh, euh, arène nationale dañ ko def dëkk bi ñu bari di ko am tamit ñu koy ñaawlu ba tax na yenn mbër yi sax dañoo boycotté arène bi parce que nee ñi leen fi dañu bëgg ñu changer changer maanaam si doxalin wala ñu jëlee leen fi teg fi ñeneen loolu ban xalaat nga ci am. arène national man dama cee feer dama cee kontaan arène national le 7 avril 1962 bi PNP laa ñëwee ànd ak Léopold Sédar Senghor làmb la seetaan keroog arène national amutoon stade amut sànd course lañ leen yóbbu keroog duut ba kasaara bëre ak Falay Balde. keroog làmb ji egul. ñu di lu ko dig ci Senghor ci président Abdou Diouf ci président Abdoulaye Wade ba ñëw ci ki nga xam ne moo xam feebar bii garab bi koy faj muy le président Macky Sall mu créé arène nationale muy biisu boo xam Sénégal ci jariñu parce que arène nationale du pour du pour mbër rek arène nationale du pour du pour mbër mbëri dañ ci am cër. conférenciers yi dañ ci am cër basket daf ci am cër ak yeneen i discipline boxe am te cër mbër yi wax ne dañ koy boycotté nag nañ tekki seen gémb bàyyi bëri ba xam ko ko yéeg mbër yi non ñoom boycotté wuñu en tant que stade bi ci boppam mais li ñuy ñaawlu mooy nee nañ ni ñu leen yoree woon la ñu bëgg mu am soppeeku laataa ñu faa teg seen tànk maanaam CNG nu muy doxalee ak ñoom di leen di dagg xamuñu fu ñu dugal xaalis bi loolu la ñu bëgg ñu ne mu leer seeni bët wa ilaa ñu changé leen CNG bi fu nekk wala ñu changé règlement bi nga xamante ne dañuy def loo xamante ne dina arrangé CNG mbër yi mënuñu tax ñu changé CNG parce que CNG démembrement de l' état la mbër yi bëre léegi kenn ku ci nekk bi ngay ñëw bi bi ngay ñëw fekk nga CNG am fi 15 ans wala 16 ans wala 17 ans. lenn rek moom ma ci déranger mooy bi ñu daggee Mohamed Ndaw tey seen vingt cinq millions suspendre ko ñetti at mel ni mbër waxut te mbër yaa ngi fi woon lu tax bi ñu daggee tey seen vingt cinq millions suspendre ko ñetti at mbër yi kaasuñu woon est-ce que même génération bilo la même génération bi la jamono yooyu Balla Gaye bëriwul Modou loo bëriwul lag de Guiers bëriwul ay Ama Baldé bëriwul mais ñeneen bëri nañu Ah, même génération bobu bu ñu la jógul kaas seen droit xeyna ñom génération bi di ñew xeyna mën nañu war ñom ñoo gëna xam sen droit dañ koy. kaas non non non non dama lay expliquer man. Mhm. ligéyuma CNC. andum mhm. du liggéeyuma ak CNC. CNC mhm. joxuma 1 franc. dina tok ñetti at sax lu CNC organiser duma ci dem. CNC bu organiser sax ay. ay fin de yooyu musuma ci dem mhm. pour wax ne défendre ma leen samay doom a ci nekk ak samay jarbaat mais loo gis ci àddina da ngay ciy jiital wax door a jëf arène nationale bi mu neex leen mu naqari leen am na ñaareel bi ci des mooy arène nationale bi bu ñu fi dindiwul niw dañ koy boycotté arène nationale bi institution euh, euh, euh, biisu la bu ñu defaral askan wi te mënuñu ko boycotté parce que arène nationale bañ koy inauguré am na mbër yu ko fekke woon tey fekkeetuñu ko kon ñoom li ma leen di ñaan mooy ministre sport moo jaar seen diggante seen CNC nañ waxtaan déggoo. yaw ñaata million nga dugal ci làmb ji. bëri na war na mat ay huit cent. huit cent million yaw huit cent millions nga dugal. est-ce que mbër yooyu tey kenn jël na ci benn paquet suukar ñëw na yow kat. dugal nga ci lamb ji 800 millions man ci kalaafu TNT bi la guéné won est-ce que am na benn mbër mu ko def. amul benn mbeur bu ko def. kon damay gerew ak duma ma mbam bu doufé nexi tan mbeuri nañu délo ci seen xel bayyi duma ma wala damay gerew parce que man tay su mbeur gerewee du téma dund su mbeur gerewul du téma dund parce que mbeur yu ci bari mak seen i baay doon ak seen i najaay man daal li ma leen di conseillé di leen ñaan yàlla na déggoo ci diggante bi. dagg yi ñu dagg yëpp ci àddina biñ dagg Lac de Guiers moomu ci gëna a metti man parce que Lac de Guiers ak dañoo bëre ba naaw. du dëgg. dañoo bëre ba naaw donc li ma bëgg mooy mbëri nañu toog waxtaan sama rakk booy Kayre suma consultant xaadim Gajaga sama turandoo suma xarit nañ toog waxtaan d'accord naa ci ñu ne nañ wàññi dagg bi. d' accord naa ci suspension bi nañ ko wàññi d' accord naa ci loolu parce que am na euh, euh, sortie euh, de libération yoo xam ni ay mbër mën nañu kurte ñi tàkk ba seeni yaram tàng ñu jéggi saako yi kooku boo leen daggee dafa metti d' accord ci loolu dafa am lu ma d' accordal CNC bi am lu ma ko d' accordul am ma d' accordal mbëri am lu ma leen d' accordal bu jógee ci loolu yaakaar naa képp ku nekk ci làmb war ngaa mën a ñemee mystique ma bëggoon xam est ce que xaadim euh, ni mbëri di jëfandikoo mystique bi est ce que xaadim gëm na mystique man li may jëfandikoo ci mystique mbër mënu koo jëfandikoo ndax mbër du am possibilité bi du am jot gi de man li may utiliser man ci mystique da nga ndax gëm naa ko may la man li may utilise ci mystique amul menn mbër ci Sénégal mu ko mën a jëfandikoo. muy loolu xaadim yow tamit père. mais dama ne am na ci mbër yow su meeku woo demoo ci arène bi léegi nga bëgg a yenu loo xamante ne benn Balla Gaye yenewu ko wala benn Modou Lo yenewu ko. ak ngeen bu taxut a doon mbër voilà maanaam mbër. avocat mën na doon mbër. nit ku nekk si li ngay yëngu mbër nga ci. mais jamono Yirim Thiam jamonoy Boukounta Diallo avocat yu mag yooyu yaa ngi dégg. magistrat man na doon mbeur ku melni sunu baye Alaaji keba Mbay ku melni ni ndjay conseil conseil ku melni ni Sow mustapha baye di ñooñu ay mbeur lañ ci lañ doon. ku melni ni sa sa Macky Sall. ku melni ni Macky Sall koku moy roi de sarène koku moy roi de sarène bi. de roi koku mo nit kenn ku nek xam nga olof fay yàq baatu wax. mbeur du ki teug cëgg ci ngem lamb ji di beure koku du mbeur xam nga mbeur mbërum làmb dafa am mais dañuy wax mbër boo bëggee tudd mbër may bëre da naa mbërëm làmb ja waaw ñu ñu ñëwaat si ma wàllu gàllaaj yi li nga ma wax léegi bëgg naa tam nga leero ko li nga ne ma euh, la ci yor mbër yi ci arène ba yoruñu ko waaw am na si ñooñ maag seeni baay noo daa ànd di wuti gàllaaj am na si ñooñ maag seeni nijaay noo daa ànd di wuti gàllaaj te bokkut man fa ma xam te mbër du ko xam fa ma xam te du ma mbër dama xam fi mbër xam ba pare xam fu mbër xamut maanaam yaa leen ëpp cumukaay fuuf yow mi maa la wax loolu fu mbëri takee kilo nga takk fa 10 kilo rendez-vous yu mag yi ci làmb ji amul làmb bu may dem te du ma yóbbu lu mat 15 kilos wala wala 17 kilos la <laughs> amut benn combat. comprendre ma de 15 kilos lan. làmb yu mag yu rendez yu mag yi nga xam ne dañ naa ñu ngi jëm Léopold Sédar Senghor. waaw ah. amu ci benn combat bu may dem te manam ta bi mbeur mi def ci cumikaayam lay def ci sama cumikaay. balaa nga génn bala maa génn. ñaata sengoor nga am. euh yi nga xamni ci amna yo xamni bala mo génn yooyu nak ay événement yu mak ay ñu ne fi fetal man na fi génn wala jazi hmm dafa am sengoor yoo xam ni mën nañoo génn ci làmb. am sengoor yoo xam ni mën nañu génn ci ciet am sengoor goo xam ne mën na génn ci ngénte mais ngénte ak ceet lu fa sengoor du def déglu ma am sengoor yoo xam ne yi mën nañoo génn ci mitin am sengoor yoo xam ne mën nañ génn ca gàmmu ga wala màggal ga wala wàccam kaamil ma wala ca daayira ba dem Dakar moom jaru sengoor dem Dakar doo nga jar sengoor nit jógee na këram ba taay yëg siwul Dakar waa këram di xaar nit jógee na nit jógee na nit départ na ba taay jël autoroute yëg siwo woo Dakar am na wala <laughs> dem Dakar képp moo jar yor Senghor. toog sa buntu kër féexlu moom jaru ko. booy génn dama ne. Hmm. booy génn dem ci bitig bi sax war ngaa yor dara pour en cas. Hmm. xanaa xamoo ni mu amet am na bët yoo xam ne luñ xool mu yàqu. am na làmmiñ yoo xam ne luñ tudd mu yàqu. bokkut nag ak doom aadama bi nga xam ne yàlla sunu borom da laa bind ni la yàlla binde parce que buuba Sadio bii yàlla bind na ko rek ni ko yàlla bindee neexuma nga contre buuba. dëgg la. parce que kañaan ak siis ak fiir ak soxor néeg la buñ takk sànni ko ci ginnaaw kër ku ne dana ci fanaan waaye sans bàyyi ne bàddoolaa ci bindante yàlla bind noonu pour wax la ne la mbërëm mbëri làmb yi lu leen waaye wax tooñ leen am na ñu leen gën a garaaw fukki junni yoon teyit gars yi dañuy nëbbu man maa am honnêteté ak ngor wax ne leen man nii laa mel ci lii laay dox parce que man du ma daw waaw li nga wax de ñi kay ñemee wax bëri man man sama maam yi ma sama maam samay maam Damel lañ doon balateng, wala teñ wala bour salum dëgg la moo tax ñooñu ma donu ñañ da andala tax dina waroog ñeneen ñi ci dess ñi bu wax ne temps jeex ji ak boy sant di gërem ñoo ngay sant ak euh tàggatoo bi di sant yalla bu baax alhamdullilah di balu ak Senegal gep di bal ak ñep di talalat sama loxo di ñaan famille làmb yëpp yal na yàlla suñu borom boole nu di ñaan man bu ma sañoon tey mbër day feeku un milliard ndax man dama war na bëre te tey yàlla dogal na làmb ji tey mbëri làmb yi takk ngémb yëpp samay doom lañ dañ maa bëgg dañ ma rus ku ci dajeel nga ni ma papa ñëpp nag loolu moo tax may ñaan yàlla yàlla na déggoo bi am CNC bi na wàññi dagg bi wàññi suspension bi wàññi sanction yi wàññi li nga xam ni lii moom lay teg xele yi ndax moo leen jur xale it nga xam ni seen baay lañ seqal tey lu mën a xew ci àddina ministre sport ku jar a ndax yàllaa kurus di sant samay way jur sama baay mi ngi dund ma nga déndey di ñaanal sama yaay yàlla sunu borom yokk ay leeram ci bar barsàq di nuyu samay soxna man maay ku ñi ma wuta lim ndax dama bari xarit baaxle ku ñi nga gis ñëpp kii suma dooma kii su kii moom bés bu yàlla sàkk kii buuba saaju bi bés bu yàlla sàkk ñooy nekk chaque jour kii suma sët la

ngeen dem xool vie expliquer ko donc yéen gatch ngalam yéen merci allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim merci jërëjëf yéen ñi nga xamantene yeen doon sétane ci seen émission jaar jaar yaakar naa ne li leen indil ci xaadim neex na leen te ku ci nekk jàngee nga ci ne aduna teub teub rek sorti ku gis fi xaadim jaar lu mu lu mu netali ba fi mu yegg ci ni tay nga xam ne kon père jambar la kon may euh, wax ne jeune yi nañu gëna gor gor aduna dara teub teub rek sorti ku ci nekk fa nga japp na nga japp rek tank que yaa dund rek nit ki war nga yaakar ne yalla mëna xey xey rek bettal ak ay xewal voilà kon ma nga ngi nak nag euh, Jean ci caméraman yi ak Abdou Fall bon xoolee tey sama yëre bu yànj bi sama soxna see fi jaar Awa Sow moo defar ba mu baax na ma chéri tey yëre bii laa bëgg nga defee ko émission maa ko si sant bu baax a baax baax di ko ci gërëm kon boog ma leen jox dig jaye si beneen émission incha allah si émission jaar jaar merci